ñooy leen charren di leen bëggee baax di leen jox seen wàccuwaay saa su ne ak liñ leen di defal ndaanaan biñ leen di présenté ndaanaan biñ leen di wan ci ëttu ndaanaan yi tey nag ñu am ci kenn koo xamante ne ni kenn dootu ko présenté ci même réew muy olo Olala xew ci jamono yëngal jamono tee gem bi nag ci loxom dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu après ñu dugg ci waxtaan bi Vieux ci loo ne waa asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum El Hadj sama xarit waaw di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp waaw. di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp Venjaay olala oh Venjaay olala oh Venjaay suñ la doon laaj kan mooy Venjaay mën nga ñu wax kan mooy Venjaay. waaw Venjaay moom ab ab nit ku simple la waaw di Baay Faal voilà nekk ci aar bi di ci yëngu. Mm-hmm. fan nga doore ci aar bi. waaw man nag fi ma dooree mën naa ne. Yves Niang la aw aw na ko ay trois ans joge fa aw Kumba Gawlo Seck après ci la ber sama daara defar waa groupe engagé voilà. kon yow bi nga beree sa daara foofu nga débuté sa carrière. waaw si foofu laa débuté sama carrière nag xam nga gannaaw bi ma awoo pare ndax xam nga balaa ngaa dugg ci ma maanaam ci musique bi maanaam il faut nga il faut aw il faut nga jàng way xam nga way ci xew yi way ci ngénte yi et cetera et tax après nga mën. nga mën dara. waaw ah, jaar nga ci xew yi. ah way way nga mbapat. way naa mbapat. ak simb. way naa simb. way kasak. way kasak. yëpp way naa maa la wax loolu. dem ci tour yeeg mariage. ah yow xam nga ci dara. <laughs> yow xam nga ci dara maa yow yàgg nañ. waaw ah, yàgg ngaa yëngal nag. ah way yàgg ngaa yëngal nag. ah mais Vieux depuis ñi commencé dégg Vieux Ndiaye Vieux ba léegi la moo tax amu ko album. ah def nga eh, album def naa album mais dama ko def euh, presque ñu dugg ci ay trois mois rek après ci lañ ci Covid 19 bi. Ah, ci corona bi voilà ci corona bi après nag xam nga ci la kase sama rythme bu bëree bëri bëri xam nga kii yi ma waroon def ak mais def mais def naa ci presque ay cinq millions. album ñaata euh, huit morceaux. huit morceaux waaye ay olola oh ci la bokkoon engage ah morceaux yu bëree bëri bëri te dinaa ko joué léegi. da nga ci label wala sa moyen bopp nga loon. waaw nii nii nag euh, pour l' instant nag maa ngi waajal nii ngi waajal waaw ndax best production mi ngi na la toog. sànq rek ñu ngi waxtaan maa ngi moom am na yeneen label it yu may contacter mais benn instant daal maa ngi xol daal di ci waxtaan ak sama staff voilà. mais dañ la doon dégg benn instant Vieux Ndiaye olala oh du ma nangu ko ma yàqal sama olala oh mu def buzz yëngal réew mi yëngal bitim réew ñi jékki saay kenn gisutul Vieux Ndiaye ñii di wax ne Vieux dafa bàyyi woy ñii ne dafa gàddaay xam nga ñii ne léegi day politique ku ne di wax quoi bu yow ci moment boobu ci ban moment nga newoon ak ci lan nga newoon. waaw boobu man bàyyi bàyyi ma woy dama nekkoon ci xam nga xam nga dama nekkoon di liggéey rek di liggéey rek laqatu di liggéey ndax xam nga jamono juñ toll nii maanaam maanaam soo bëggee dara il faut def dara ma laqatu woon di liggéey en même temps boole ko sama liggéey ndax ku ne xam na ne jamono ji xam man euh, maa ngi Sorano voilà Sorano fa laay liggéey ah, waaw si maa ngi Sorano waaw tam foofu boo fa nekkee presque xam nga fonctionnaire ngay doon xam nga euh, léeg nga bëgg xew sax ñu woo la da ngay mujj bàyyi sa programme xam nga demal leen loolu moo taxoon ma laqatu rek benn instant waaye. waaw léegi suñ la doon laaj lan moo la gën a métti ci ci ci ci aar bi depuis nga dugg ci léegi ak lan moo la ci gën a neex. waa aar bi li ma ci gën a li ma ci gën a neex waaw li ma ci gën a neex moom mooy aar bi rek mooy way quoi. mais li ma ci wala mais aw ma dara lu ma ci naqari parce que jamono juñ toll nii mën naa ne. non. xam nga ci ay jëf ay jëflante ay doomu ay waaw xam yooyu mënut a ñàkk mais xam nga loo engagé bëgg ko nekk ci doo faale yooyu mais dégg nañ ne gars yi nañ la de géem comme na ah gars dugaloon nañ la ci butéeli fay la complètement kenn déggutul fay jaay oola waaw mais non am naanam ne kenn mënu fay kenn mënu ko fay maa ngi nii fi nekk nii maa ngi yëngal maa ngi sama ruq di yëngal maa la wax waaw moo ngi yëngal am nga jabar wala amagoo jabar. waaw instant bi nag euh, maa ngi xool maa ngi xool. waaw maa ngi xool <laughs> ci xool nga maa ngi xool ci xale yi. Ah. waaw kuy say wala kuy sayal. non fi mu ne nii kuy say ah. hmm. kuy say. Hmm. ah na xale yu jigéen Sénégal moom ñëpp a mën say boy. mais dégg nañ ne dégg nañ ne waa ji réew mi sa doomu nday la sa xarit la borom dóore yi. borom dóore yan ah waaw sëy bi fi yëngatu daal ñu ne waa ji da doon dóore quoi dégg sa doomu nday wala amul ay relation a ah, Mario Mario sama xarit la way sama doom nday la mais ni ni ku baax la nag mais nag li ma dégg nag ñuy wax ci moom ni yëpp vraiment loolu amul ci moom ndax ndax nit la koo xamante ne Mario nit ku baax la foo ko fekk kafre ambiance loolu la xam xamul leneen ah dooriwul non non non ah yooyu yooyu dañuy wax rek xale jigéen yi c'est que da doon génnee kilibam bi xam nga bëgg am buzz rek voilà moo tax mu <laughs> moo tax mu engagé noonu di. moo tax mu doxalee ko ah waaye sama xarit bi nit ku baax la. ah, ah Mario sama waay la. doore ma doom day la non non xamul yooyu sax. di mhm. jantal men la ma Mario di Baye Fall. Mhm. nan nga gisee jubóowu Sidi Diop be Wally Seck. waaw loolu moom dama ko rafetlu vraiment lu ma rafetlu la lu ma neex la ndax nag aar bi dafa laaj loolu ndax bu njëkk Alioune Mbaye Nder daraan demal keneen Youssou demal kenen Pape Diouf demal keneen ak noonu la. ard xam nga ñu ñëpp dañoo war a nekk benn voilà juboo xam nga nekk ensemble dafa neex loolu But then no